loolu tamit ñu ngi koy xaar pour ñu wax ñu fan lañ ko war a dugal parce que nag ni ñuy luubale xaalis moom jaaxal na ko ne fi mu toll dem na ba ci woote bi ñuy woote tey sax danañ si agsi loolu lépp ngir jéem a naxal xelu askan bokk na si kon loolu fekkente ni ab dan ma gis ni aussi tamit fuuta gi nga xamante ni ku ne xam ne jafe-jafe yu dund ginnaaw bu leen massawoo bokk ak ñoom coono bi ma jàpp ni ku mën a jox Ziguinchor 54 milliards war ngaa mën a jox Fouta 54 milliards dégg naa 8 milliards lañ bloqué débloqué 8 milliards yi ñu ngi xaar fan lañ koy dugal parce que wax nag yomb na waaye tamit pour mu àgg ci population bi ko soxla yaakaar naa ni war nañ koo xool saytu ko ba xam ñan ñoo ko war yore gis na nag ni lan moo tax ñoom jubuwuñu Fouta pour xam na ni ñoom bu fekkente ne électoral la. jàpp na ni ñu faa gagné ci élection yi ñëw xam na ne gagné wuñ foon élection yi passé kon ñoom bu sañoon ñoom ndox mii fa nekk ak jafe-jafe yi du jeex parce que bëgguñu élection am Fuuta wal nag est-ce que élection dana am waaw wala déet loolu yaakaar naa ni li ci kanam rawuli bët ndax bu Diomaye fay ñibbisee déclaration bi muy def est-ce que day wax ni Fuuta mun ñu faa dem élection wala est-ce day wax ne élection yi duñ ko war a dàq ndax li nangam loolu am na ñu koy ruumandaat te jot nañ see waxtaan waxtaanu secret ba am na si yenn opposition yoo xamante ni jot nañ ko bëggoon a loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parce que nag élection yi fi mu toll ci sondage bi nu mujj am ñoom 32 pour cent lan am mooy waa Pastef xam nañu loolu man xam naa ko ñu bari xam nañu favorable lañ jamono yu toll nii ndax élection de réseaux sociaux. te li nga xamante ni moo leen wataloon élection yi passé ñu si baree bari rëccu nan li nga xamante ni mooy wat gi ne wataloon parce que xam na ni ay cuuna leen mun ñoo doxal a mi yaakaar bi amoon si ñoom ñëpp tamit xam na ni tas parce que man toog naa moom toog na lam waxoon ni bu jotee si réew mi ñaari weer jafe-jafe dana ko saafara juróom ñaari weer mënut a teg benn biri kon lam waxoon amul léegi nag nit ku nekk ci sa ay wax rek nga ko mën a jàppe bu jëfee nga gis Ousmane Sonko man wàccoon na ma moom ci lu ma ko war a defal lépp defal naa ko bu nekk si opposition bokk na si ànd ak moom ba dugg kaso ànd ak moom ba nangu samay kër fii maris ñetti kër fii mari Macky Sall nangu na ko ànd ak moom ba tëj sama entreprise Macky Sall teg na ma loolu lépp Ousmane Sonko bi ma àndee moom tamit lépp loo xamante ni ay jafe-jafe yu jëm sama kaw gis naa ni bokku ko ak man bi mu dugalee si kaso bi sama jawar mer na ma juróomi weer bi ma génnee parce que Ousmane Sonko tegul tànkam si kër gi te xam na ko te daane fi ñëw ndax suur bi mu jógee kër Adji sama kër gii la ñëw te loolu dana si ñëwaat ci kanam kon jàpp naa ni moom xam na ma man xam naa ko suur bi nga xamante ni sama yaay faatu na Macky Sall mi nga xam ne moo ma def loolu lépp dafa yónnee délégation ñu jaale mu woo ma téléphone Ousmane ko jaarul ci loolu nit nag bu ngeen dee ànd te nawlante wu leen kenn ko da ngay xam sa bopp te ñu li ñuy am suñ tuwaa ñu ko may du jeex loolu moo tax may wax Sénégal yi nga xam ñoo may seetaan te xam ne heure bu ma yëkkati sama kàddu dëgg lay fas yéene wax ak ñoom gëm Serigne Touba dama ko yemale ak dara bu ñu fi doon def cinquante ans te lii nga xamante ni moom lañ war a def ci kilifa diine yi dakkuñu Omar Diagne du ma mas a ànd ak ñoo war ma jàppale seen procès ñu jëm nag ci loo xamante ni le set soreetul parce que sénégalais yi ñoom ñooy àtte sénégalais yi ñooy xool ba xam dund gi ñuy dund est-ce que dañoo bëgg mu continuer ci neex waaw wala déet est-ce que dañoo bëgg mu naqari continuer faw ci juróomi at yi waaw wala déet loolu souvent ñoom ñoo jël seeni matuwaay. wote li nga xamante ni mooy wat contre leen wote l'opposition parce que man ak moom daan nañu ànd mu naan di campagne yéen sénégalais maa ngi leen di wax ni na ngeen jël opposition bi ngeen jox leen majorité ensemble nationale ndax mënoo jox nit ki président de la république par jox ko majorité loolu baaxul ci démocratie moom moo daa wax loolu. waxi démbam nag boo ko nettalee tey bu naqaree ñan ni mooy kon la ma waxoon moo amul te dama daa dégg président Ablaye Wade daan ma wax ni. nit bala nga koo xam dëgg-dëgg day am alal wala mu am nguur mu ne ma nguur xajul si baadoo la xajul si bopp ku dof ay Ousmane sonk mi nga xamante ne nii le 7 novembre 2022 à 21h30 mi ma soye woon viam tam nekk nii Ousmane sonk mii wuute na ak sonk mi ma gis léegi bii le 7 novembre la woon këram ak sama doom bu jigéen bi nekk ci kaw 11 ans la am suur bii nii façon lan ko naroon a def maa dem di wax ko ko suur bi lañ ko waroon a posone man maa dem ci heure bi wax ko ni ko sa jàppukaayu oto dañ si def posan suur bii la woon suur bii nii si laa joseeg Basiru Jomaay Fay ci escalier bi yéegul si kaw étage bi bu may wàcc suur bii la woon à vingt et une heure waaye Ousmane sonk mii nag ak Ousmane sonk mii nga xam moom laa gis jam ñaajo barki démb am na différence ba tax na sama doom bii semaine bii pass dana ma papa ki may gis si télé bi xanaa du Ousmane Sonko man àndoon ma ne ko moom la kay mun ma sonk Sonko day dafa mel ni papa fayu la san fayu la li nga ko lebal ma ne ko kenn ku nekk xëy na yàlla mooy def li sa xol moo tax ma ni li ma doon ŋàññee Macky Sall lépp mu ngi ci Ousmane Sonko wala lu ko raw Macky fii nga xamante ni mooy maire fii nga xamante ni mooy maris gii Macky Sall moo fi nangu sama ñetti kër kuyetu kër yaa ngi nii benn kayitu kër baa ngi ni Macky Sall moo ko nangu bàyyi la duwaareel mi ngi nii notification maa ngi ko amoon le 10 avril 2017 Macky Sall nangu na terrain bi beneen terrain bi ma doon wax Macky Sall nangu woon ko mi ngi nii encore mars laa ko amee woon muy ñaari terrain ñetteelu terrain bi moo nekk nii lii Macky Sall moo ko nangu si man ginnaaw bi mu tëjee suma entreprise bi nga xamante moo tudd Doli BTP bi ma demee ba nga xamante ni dem naa ba wax ensemble ñu war maa fay man lii moo nekk contentieux bi nga xamante ni impôt domaine moo wax ni Cheikh du Bara Doli teere yi nangu mars dañ lay fay sensé loo ko def la feneen contentieux bi njëkki dem mu ngi nii le 4 mars la woon 2020 numéro 842 contentieux bi ba muy dem ñetti kayit yi Abdoulaye Racine Sy dossier ci la bokkoon bi nekkoon directeur kar Karim wadd ak Cheikh du Bara Dolly ak sama terrain bi nga xam ne sama turu soxna laa ko di muy Bintu Mbacke beneen terrain bi muy dem contentieux moo nekk nii Mamadou Ndiaye moom ma ko jaayoon mi ngi dem le 8 juin 2020 ñetti terrain yi Macky Sall moo ko nangu si man pour ñu yóbbu ma contentieux bi ñu ma yóbboo contentieux ñetti terrain yi a faye ñu ngi nii lii mooy plan bi notification yi moo nekk nii à l'époque ku ñuy wax Mame booy Diao moom moo fi nekkoon bi ma demee war a def baay bi Mame booy jaaw daal ni Cheikh du Bara da ngay xas Macky sàll moo tax sa terrain yooyu kenn du la ko jox